ayca ayca ayca leen sama gaay waa yow ma bàyyi jëli ko ah. waxatuma bojo bojo xaalis de la xëcco la gaarim nga nim oto yow nga ni nga buñ la ne waxat looy wax eh

magal mom defena actuellement mo raw sax aji mak parce que euh, li nga xamanteni ni euh, ñu ngi koy jànkonteel fi ci métit ak coono ak tangor bu metti ak climat bo xamanteni euh, ñun tàmmuñu ko parce que ñun mom Dakar rek lañu min alors alors une émission fuligal sen génnee nako indi ko fi ci diwaanu Touba donc xamna ni ne yéen ñi moom la quoi parce que ñewna fi sama téléphone yàqu carrément actuellement je marche avec les postes vides actuellement téléphone Sega utiliser

Hmm, nit ñi fu nekk la ñuy bàyyeekoo rek ah, ngir ñëw ah, màggal ah, li nga xamante ni moo di màggal gu mag gi xamante ni moom la Serigne Touba dan amal chaque année. alors seen émission Folie Galsen bi nga xamante ne daan ngeen ko gis fépp tey dama def déplacement ak dérangement ànd ak le grand caméraman de toute l'histoire que j'ai jamais connu depuis ma naissance mon ami mon frère le grand caméraman le monteur le cadreur le tout de son vrai nom Seyga suñuy paas nag actuellement jeex na. instant nag on marche avec les poches vides lépp rek ngir liggéeyal Lorraine Squad TV lépp rek ngeen gis loo xamante ne yéen ñi nga xamante ne ñëwoo leen sa màggal gi da ngeen di toog seen i biir kër di ko gis amis chers téléspectateurs seen émission Folie Galsen yéen ñëpp xam ngeen nan ak naka lay demee donc boîte bi ay surprise moo ci nekk te damay maye képp koo xamante ni pare nga pour ñu waxtaan ah bu ñu waxtaanee waxtaan bi neex rek dama lay may li nekk si biir boîte bi alors grand kaay kaay ñëwel nii tur bi naka la. Serigne Koso Saw. dégguma Serigne Koso Saw. yow foo jógee. man tu Ngexo. Ngexo de Kaolack. Kaolack waaw. mais pass yu cher na wala cher. waaw daa cher trop quoi parce que 7000 3500 4000 quoi. moom moom nga pass waaw. mais ñun 10000 lañ pass. waaw 10000 lañ pass ku ne rek ak li nga mën a pass quoi. waaw mais pass sax daa wàññeeku quoi moo tax ñu door di ñëw. kon kon yow da ngaa ñëw juste pour màggal mu jaral la lu nekk waaw mu jaral ma lu ne su ne kon 20000 sax man dama koy fay waaw. dama bëgg ñu waxtaan waxtaan boo xamante ne yow doo wax waaw doo wax déedéet boo ko teniree une minute la nekk ci biir boîte bi yaa nga moom d'accord pare nga. waaw nga déjà wax nga waaw te dara xewagul mais dama la koy baal dañuy tàmbaliwaat waxtaan bi yaa ngi comprendre nga ni foo jóge Kaolack. Kaolack. waaw Kaolack nga jógee. Kaolack. Kaolack nga jógee. Kaolack. ma ne ndax Kaolack nga jógee. Kaolack. saa ndax Kaolack nga jógee. Kaolack. almela mooy Kaolack. Kaolack laa jógee. Kaolack nga jógee. Kaolack. da nga ñëw juste pour màggal. màggal si Touba quoi. moo la fi indi. Kaolack. non eh non déglu ma déglu ma màggal Touba moo la fi indi. màggal Touba moo fi andi. yow fan nga daal. man Kër Sëñ Koso. Kër Sëñ Koso fu mu nekk. a ma naan ak Fass nii ah, foofu nga daal. waaw foofu laa daal. wax nga waaw perte nga. Ah, ok ok grand yow nga ne tur bi nag. Cheikh. Cheikh nan Ndiaye. Cheikh foo Dakar. Dakar ci fan. lan moo la fi indi màggal wala yow da ngay jaay wala ci lan ngay yëngu. maa ñëw pour màggal si. nga ñëw pour màggal. Mhm. ñaata nga paas bi ngay ñëw. 5000. 5000. bus nga jël wala lan. bus. ok ban dal nga nekk actuellement. Ndaamaatu laa jëm. Ndaama. Ndaamaatu. Ndaamaatu. Mhm. ok sëñ bi mbaa doo fër ci màggal. doo fër. du ma fër. doo fër. léegi dañuy waxtaan waxtaan boo xamante ne. yow do wax waw do wax dedet boko tenir une minute li ci bir boîte bi yaaga mom nga ne fan nga jóge Dakar Dakar nga jóge waw wax nga wa per <laughs> ok mu melni mu melni yefi dafa commencé neex grand yow fo fo jóge nga ne ties ties Thiès kaay benn ñaari gar wa ties ngi lan ngay wax ñele la wa ñi dama leen wax ne xam rek bon maga très bon maga rek wa yeen bu leen ma buux sama gaay magal màggal quoi màggal gu neex rek gu xewle xewle sawan bawan waa yaatu la ñaan mais ban yëg-yëg am ci euh, màggal gi nga xamante ne dañ koy amal chaque année ñu gis ni chaque année nit ñi dañuy gën a bare waaw màggal waaw sëñ Tuubaa bari doole rek sëñ Tuubaa bari doole moo waral màggal gi moom chaque année rek day day day gën a yaatu gën a xéewale gën a gën a gën a murite waaw sëñ Tuubaa kese la mbaaroo fër bañ nga dem toppale kii affaire yooyu noonu ba fër non du ma fër ma fër du ma fër yow noo man Guèye Guèye la sant Guèye Ndioro dama la bëgg may benn cadeau boo xamante ne mu ngi ci biir boîte bi mais dañuy waxtaan waxtaan boo xamante ne yow doo wax waaw doo wax déedéet boo ko teniree une minute li ci biir boîte bi yàgg moom d' accord. d' accord nga ne foo jógee. Thiès. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. benn dëkk ñaari gaar. foofu nga jógee. foofu laa jógee. ok yow ñaata nga paas bi ngay ñëw. bi may ñëw maa ngi paas 5000. 5000 nga paas. 5000 laa paas. mais attends sa waay. Euh, Njaga Njaay nga jëloon wala lan. oto bu ndaw. oto bu ndaw nga jëloon. oto bu ndaw laa jëloon. oto bu ndaw nga jëloon. oto bu ndaw laa jëloon. Eh, sa waay yow ndaanaan nga est ce que xam ngeen est ce que d' accord ngeen moo ko jël d'accord ngeen. attends benn nit rek laa dégg mu ne waaw. yéen ñëpp d'accord ngeen. kon ñu ubbi ñu xool lan moo nekk ci boîte bi. ñu ubbi ñu xool lan moo nekk ci boîte bi. am ubbilal sa bopp. nga won ko waa Sénégal yëpp ñu gis lan moo ci ne lan moo ci ne sama gaay sama ni lay demee dañuy àndandoo ñu kaf ñu foo ñu reetaan comme ni ma daan ko defee di dem fépp tey maa ngi fii ci biir Touba xam naa ni balaa maa génn fii danañ ma dóor loolu loolu leer na ma léegi sama korome euh, sama copain damay jël sa numéro bu ko defee ñu daal di échanger jëlal sama numéro léegi nii nga def ma signe après après bu ko defee yow ñu foog ñu am nu ñu euh, def ak yow sama gaay yéen a ngi gis actuellement euh, ni nga xam si ne noonu laay doxee ci biir Touba mais samay moment de folie laa defagul quoi kan moo saa ñëwul nii. verre yi ngay jaay ay verre lan la. verre simple lañ. ay verre simple waaw. amoo ay photo gré xanaa. photo gré ko jeexal. Hmm. waaw yow fan nga dëkk. man laa laa nekk quoi Kaolack laa dëkk laa nekk. foofu nga jógee di euh, ñëw pour jaay. waaw ñëw pour jaay. est que jaay bi mu ngi dox ak màggal gi. ah ñu ngi taaba taaba ndànk ndànk rek. yéen a ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu nice di sant yàlla. mais euh, sans màggal ak ak euh, bu dee màggal ak bu dul màggal ban mooy euh, gën a dox. noo comme nii ñu toll nii moom bi may nekk ndar la gën a dox ndax place laa yor foofu comprendre nga mais nii nii nag dina gën a saasi nu gan ñu di gën di bëree kom nga waaw. ok sa waay daam lu mu la bëgg may mu ngi ci biir boîte bi mais dañuy waxtaan waxtaan boo xamante ne yow doo wax waaw doo wax déedéet boo ko une minute. li nekk si biir boîte bi yaa moom te kenn xamagul lan la. waxal ma hmm? ok dañuy waxtaan mais waxtaan bi yow doo wax waaw doo wax déedéet. Ah. boo ko teniree une minute lu nekk si biir boîte bi yaa ko moom. dañuy kaf dañuy foo dañuy reeta pare nga pour ñu pour ñu euh, tàmbali lool. waaw mu ngi dépendre si yow bu ma xamee ok c'est bon tur bi naka la nga ne. Mohamed Cissé. Mohamed Cissé. Cissé Ngaari Njarme. noonu nga noonu nga tudd. waaw wax nga wax nga waaw. <laughs> <laughs> ok sama waa ji tur bi naka la. man Sylla laa tudd. Sylla da ngay teg téléphone bi nga jàkkaarloog waa Sénégal yëpp nga ne tur bi naka la. Cheikh. Cheikh nan. Diouf. Diouf ak Niokhobaay. waaw foo jógee. Dakar laa jógee. Dakar ci fan. Pikine. Pikine saa doo siggi nga jàkkaarloog waa Pikine nga wax ñoom. Hmm? sa papa mu ngi lay seetaan sa yaay mu ngi lay seetaan sa famille ñëpp a ngi lay seetaan lan nga leen di wax. dëgg la non ñooñu maa ngi nuyu di maa nuyu ñoom ñëpp nuyu rek nga leen di def nuyu kase ah nuyu kase nga leen di def nuyu su ma yeggee jumaa daa leen ñaanal da nga leen ñaanal incha man doo fàtte non non ñëpp daa ñaanal ñëpp ngay ñaanal sa waay dafa dama la bëgg may li nekk ci biir boîte bi incha allah mais dégg nga li ma waxtaan ak kii léegi dañu waxtaan waxtaan boo xamante ni yow doo wax waaw doo wax déedéet boo ko une minute li ci biir boîte bi yaa ko moom d' accord ok nga ne tur bi naka Cheikh Cheikh nga tudd Diouf Cheikh nan Diouf laa Cheikh Diouf laa tudd ah Cheikh Diouf nga tudd Fo jógee nga ne Pikine waaw wax nga waaw ne ne ok yow kaay kaay tur bi naka la Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye Mbaye waaw foo jógee fu ma jógee Baba Garage Baba Garage fu mu nekk ma ngi si yoonu Bambey yoonu Bambey kon sori woo Touba déedéet sori ma Touba ñaata nga pass bi ngay ñëw bi may ñëw ñeenti ñeenti téeméer mooy maanaam 2000. ñeenti téeméer waaw. mooy 2000. ñeenti téeméer. sa waay yow commencé guñu waxtaan boobu noonu de dugguñ ci waaw ak déedéet. waaw moo tax ma lay laaj nii. te yow xam naa ne buñ tàmbalee léegi nga ne waaw. déedéet ok léegi dañuy waxtaan waxtaan boo xamante ne yow doo wax waaw doo wax déedéet boo ko tenir une nekk fii yaa ko moom. waaw atia. d'accord ah jàppal naa nga ne tur bi naka la. Moustapha Mbaye. Moustapha nga waaw. <laughs> perte nga bu yag kan moy jël li nek ci boîte bi sonna ci gaay kay ma may la benn cadeau kaay yow gaay ñewal yow ñewal tour bi nag Lamine deguma Lamine Lamine Lamine nan Jaw jàkkaarloo wala wa senegal Lamine Lamine Jaw asse dañuy waxtan waxtan bo xamante yow do wax waaw do wax déedéet boko tenir 1 minute ya mom nek ci boîte bi d'accord nga ne foo jóge Fuuta la joge Fuuta waaw wax nga waaw Séga gaañ dem instant xam nga fa laa jëm si ñuy koko yee xaw ma riko wala lay jaay day jaay ñaata la ñaan la ñaan ay foo jëm ñu ànd. dem taxaw ñu waxtaan <laughs> mais grand foo jógee. Dakar. Dakar ci fan. Dakar euh, Patte d'Oie quoi. yaa ngi door a ñëw nii. maa ngi door a ñëw coono kay. <laughs> non ñoo ko bokk xam nga. ani waa Patte d'Oie. ñu fa ñu si jàmm kay. mais euh, yooru màggal géej ak yu ni mel. non métti na rek mais sañ bee ko jar quoi. waaw. dafa tar. non tar na trop sax. nga paas. instant bi man 5000 laa paas quoi. waaw ah, yow tane nga parce que man démb bi may ñëw 10 000 la gis nga ne mais xam nga xam naa ñu li la quoi xaw a mais amoon amoon na embouteillage no amoon na embouteillage moom trop ok dama laa bëgg may li nekk si biir boîte bi mais li tax ma may la dañuy waxtaan waxtaan boo xamante yow doo wax waaw doo wax déedéet boo ko teniree une minute ci boîte bi yaa ko moom du wax waaw du ma wax déet waaw ci biir waxtaan bi waaw ok waaw baax pare nga pour ñu dem n'est-ce pas ok euh, nga ni fan nga man Grand Grand nga jógee. Grand Médine laa jógee ok ñaata temps nga def ci yoon bi. à peu près ay 4 heures de temps. 4 heures de temps. ok yow tur bi la. Bari. Bari. Wah ma Bari. Bari. ok dañuy waxtaan waxtaan bo xamantene do wow, wax waw do wax dedet boo ko tenir une minute li nekk ci biir boîte bi xamoo ko man xawma ko ki xamu ko boo ko tenir une minute li nekk ci biir bi yaa ko moom d' accord. d' accord foo jógee. parcelle. parcelle. yow yaa waane waxaatal eh, nga pour ñu waxtaan. waaw. wax nga waaw te dara xewagul kan mooy gagné nekk ci biir bi xamaguma ko mais sa ma kii mais sa yow li nga sañse yow yaa li nga sañse. Eh, dafa yaa yéen a defal nii de sama gars léegi deen may-may ma daal di continuer wéyal li nga xamante ni moo di sama émission Séga kaay saa fan ngeen jëm loon jóge yéen ah, waaw jëlal porte parole porte parole kaay foo jóge waaw ñoo ngi jóge ba guy sew fu mu nekk parce sëñ Ba mu ngi côté alom nga ne alom nga ne dox nañ ba ba sonn wallaahi bi seer na wala seeru paas bi macha allah instant yi benn ñu ngi koy ñu ngi koy laajee fii ba guyee sew mi 500 si saret saretu mbaam téeméer. mbaam nga laal yow. saretu mbaam laal laal ba fii kër sëñ Touba bi ma wàcc war a dox ba ginnaaw kër sëñ Modou Kara bi nii. Mm. waaw màggal geelu ko jaral. waaw sëñ Bamba rek nag kase dong. kenn du moom. du moom moo mën. Ahmadou. moom rek la ñuy Ahmadou. borom jamni ok ci kaw loolu dama bëgg ñu waxtaan waxtaan boo xamante yow doo wax waaw doo wax déedéet. boo ko une minute ci boîte bi ok nga ni fan nga jógee. guy saw. déggu ma. guy saw guy saw guy saw nga jógee. guy saw. guy saw nga jógee. guy saw guy saw. déet sa waay dama ne la ba xam foofu nga jógee. guy saw laa jógee. foofu nga jógee. guy saw laa jógee. ok ñaara nga paas. 500. 500. 500 500. 500 nga paas. 500. 500 donc nga paas. 500 500 laa paas. mais yow xanaa kon foofu soriwul Touba. 500 fii. ci biir Touba la guy saw. ah ci biir Touba la bokk. Touba la bokk côté Aram nga. ah bon. kon alom nga waaw. mais sa waay yaa ñor yow kaay kaay waa gañe nga d'accord gañe nga léegi. Hmm? xam nga man dégguma la. gala ñaaxoo. xam nga man dégguma la. dégg déggoo ma. ok waa léegi kon dañuy demaat comme que werante mu ngi am dañuy demaat. ñëwal nga fan nga jógee. Guissaw Guissaw. Guissaw nga jógee. Guissaw waaw. ok ñaata nga baas. téeméer. yaa ngi ñii mu ne gars yi ñoo ànd waaw. yéen a ànd ñoo ànd. waaw bi sama sax waaw bi moom mënatoo ko téye. waaw bi daa fës. fan la génnee waaw bi fan la génnee laa waxee waaw. nga waaw bu yàgg. alay ubbil boîte bi. <laughs> mais gañe ah, surprise. yow nga ne. lu may wax waxal yow posé ma question. ok tur bi naka la. Modou. waxtaan boo xamante ne doo wax waaw doo wax boo ko tenir une minute lu nekk ci biir boîte bi yaa ngi ko. waaw waaw baax na. dèjà wax nga waaw te dara. waaw comme dañ commencé na yow li nga yor ban marque la. iPhone laa yor. iPhone ñaata. 11. iPhone 11. iPhone 11. iPhone 11. iPhone 11. ñaan nga ko jëndee. 350. 350. 350. mais sa waay yow xaalis boobu noonu xanaa da nga ko for. foru ko dee dama ko liggéey. da ko liggéey. dama ko liggéey. depuis quand nga commencé liggéey ba jënd iPhone boo xam te ne 350 mille la li bu ma ko bëggaatee dem suba mu jëndat ko. foko tek parce que ma ngi liggéey. yaa ngi liggéey maa ngi liggéey. liggéey. man tailleur lay def. ah tailleur ngay def. tailleur lay def. mën nga ñëw. damay ñëw trop. li ngay def maîtriser nga ni mako maîtriser ëpp na. mais sa way gagné nga ah, eh, sa way gagné na ah. léegi waa léegi. taxaw leen taxaw leen taxaw leen. waaw def leen ndànk. daf leen ndànk daf leen ndànk waa gañe na d'accord ñëpp xam nañ ne émission bi émission Folie la yéen a ngi comprendre c'est avec votre jeune artiste wëus comédien Fure lay fël la dama koy bàyyi mu ubbil boppam mais damay puus balaa ñu may dóor xajal leen ma yoon mi am xoolalal sa bopp est sa bopp la ma jox saa bu boo fóotee ba pare da nga jël rek képp maa la ko am jël xool nu ma ñàkkee saa jox ma paasu guy sew. baal bu waat bi baal bu grand maa ngi ñëw mais grand émission bi nii la jël naa sa temps xam naa ne sonn nga mais coono bi instant na. est-ce que xam nga da nga koo gën a yokk ndax man bi may wax nii ni ma stressé yow boo na rasulilah lii. mais kontaan léegi xam nga nu ñu def yow du ma la bàyyi nga demee noonu jëlal sama numéro léegi nii après nga taf ma si ñu déggoo. jox ma sama téléphone. jox ko téléphone am. ata defal ubbil téléphone bi defal 77 829 mu mel ni gars yi damay jël seen temps si waxtaan ak ñoom ah waxtaan ak ñoom ba ñu foog ni affaire bi lu nekk ci nekk ma dind seen stress reetaan loo jël seen temps parce que des fois di nga dajeeg nit mu stressé wu lool te ça m'est arrivé plusieurs fois ah ma dajeeg nit stress sonal ko mais ci ni may waxtaanee ak moom ci ni may jëlee temps am ci ni ma koy indiwaatee dafay daal di fàtte automatiquement li nga xamante ni moo di ay soucis donc émission bi nga xamante ni moo di Folie Galsen euh, dañ ko créé juste pour di waxtaan ak askan bi parce que bon je suis nommé l'animateur de la rue donc ma accepté leen ko nangul leen ko bamou neex li nga xamante mo moo euh, ci biir boîte bi képp la. te képp ñëpp a koy soxla boo fóotee ba bare yow mi nga xam ne sa kàlla dafa ngand boo fóotee ba pare da nga rek képp ah man mi nga xamante ne caleçon bu ndaw laa yor ndax taay bu ndaw laa yor ah, sama gaay kal taay bu ndaw laa yow moom la sees nga yow donc du ma def lu dul daal di li nga xamante ne yow loo jaay kaay jaay ndox jaay ma ndox eh, eh, boo loolu ma saaga la maam de li nga war lan la loo jaay Wah jeexee doo ñibbi. demee foo dëkk foo dëkk. Touba. tuba. ji fan. waxaatal ma Touba. si jumaa ja. si jumaa waa. hal eh. an ka bandam. <laughs> eh. eh tan eh tan ngand daa ko. eh tan ngandi de. eh tan. eh. ñaata ndox nga yoro. ah. ñaata ndox nga yoro. paquet. paquet bi jeex na. waa. ci lu bari. Wah. ay ñaata. 500. man ñaata laa ci am. Ah, ma de. xamoo ñaata laa ci am. yow bëggoo maa may. bëgg naa la si may de. ana xaalis bi. ah mooy sama yaay. sa yaay. waaw góorgóorlu dégg loo jaay rek dama jox sa yaay dégg waaw jaajëf kontaan ci yow. voilà donc l' émission tire à sa euh, màggal gi nag fi mu toll nii day door a tàmbali te euh, suba euh, mooy màggal gi. te comme ni ma ko tàmbalee nii euh, di commencé di leen wan li nga xamante ni moo am fii ci biir euh, diwaanu Touba ah, noonu rek laa koy wéyalee durant c'est ici le Rufisquois TV où leen di abonné Si bu êtes abonné vous laal li nga xamante cloche de notification pour de permettre ngeen di mën vidéo intégrale à temps c'est ici le Rufisquois TV avec votre jeune artiste Weuz comédien l'animateur de la rue du ci tout le temps le grand caméraman de toute l'histoire que j'ai jamais connu depuis ma naissance mon ami mon frère de son vrai nom Sega le cadreur le monteur le tout grand Barou, yow lañ fi nekkal instant ça, suñu passe jeex poche vide man sama téléphone instant yàqu na te xam naa ne bu ma ñëwee dakaar ak jàmm dama lay poñe ne la grand ba nga ne man naam man la sama téléphone sama iPhone fii la wadd naa ko téléphone bii instant yi toj na gisoo tàkkul deful dara su ma ñëwee dama lay poñe nga jox ma téléphone donc yéen ñëpp maa ngi leen di kontaanee yow eh kaay ma may la benn kepp yow bëggoo kepp bëggoo kepp bëggoo kepp comme bëggoo kepp yow yow bëggoo képp. mun naa xaa jox sama yaay day fóot. sa yaay day fóot. waaw yow lay fóot. ah sama yaay. Ah. waaw dañuy fóotal ñun. yow bëggoo képp. ku bëgg képp. ku yaa bëgg képp. waaw yow looy képp. sa tuñ yi xanaa de. Hmm? waa léegi képp ma utiliser ko. ah yow looy képp. ay ma may la benn affaire gaay yow luy kebb yow kebbal yow luy kebb waaye yéen kaay la ma may leen kebb bi fecc laa koy may waa yow kaay yow bëggu waa waa kaay waa taxawal waa écran taxawal tur bi waa tur bi naka euh, macha allah macha allah euh, sëñ Muntaxa Mbàkke فتبارك الله ما شاء الله ما شاء الله سيغ منتخا ريم جي جي ما شاء الله سيغ منتخا مبكتي ما شاء الله ما گال جي ما شاء الله سيغ منتخا يالنا في ياگ تيور ما شاء الله ya habiballah macha allah sukuran macha allah Serigne Touba yaa njëkk laal der macha allah julli biroom ndar macha allah yow rek yaay mbër ci Seex Bamba Serigne Touba yaa neex a siiwal yaa jaroon jeewal yaay may xéewal bila anaay Serigne Touba yaa wax li nga wax yaa dox li nga dox yaa jox li nga jox moo dina xaay Serigne Touba réew mi nga feeñe ñëpp leen di ñee yaay kañu ràññee foo ko samaay Serigne Touba dem nga sarsaara naanee siyaare doomi maam jaara yaa Seex Bamba Serigne Touba yaa dox ci kaw géej kabar kaw géej julli ci kaw géej te Seex Bamba Serigne Touba foo mas a jaar jumaa fay taxaw Serigne Touba foo mas a jaar jumaa fay taxaw Serigne Touba foo mas a jaar jumaa fay taxaw Serigne Touba foo mas a jaar ci réew mi jumaa fay taxaw sooree si kaw li si xadaay Serigne Touba yaa wax li nga wax yaa dox li nga dox yaa jox li nga jox moo dina xaay Serigne Touba dem nga sar naar naaree siyaare doomi maam jaar yaa Seex Bamba Serigne Touba yaa neex a yaa jaaroon yaay may xéewal bilaa anaay sëñ tubaa man mii taxaw lu ma la way lu ma wér la lu ma dund la lu ma xam la loo ma wan la ci wàllu biir ak biti sëñ tubaa ku ko sopp neel ni sa loxo ci kaw sëriñ tubaa sëriñ tubaa sëñ Tuubaa képp képp koo nangu yàlla nangul ko sëriñ Tuubaa képp koo gërëm yàlla gërëm ko ubbil ñu baabal xeraati sëñ Tuubaa mën mi fu ma toll yëg sa teewaay war nga ne ma yaay ngeen gi waay wér nga rafet nga taxawaay ubbil ñu baabal xeraati màggal gi nag neex na ginaar yi saaf nañ ko ba mu ñor macha allah petit pois ñor na rago yi macha allah foo tourné jox la pomme. mais mbaa am na ndambe ndambe am na. lépp am na fi am na ndambe ndambe la ñor xom sëñ Tuuba moo am lépp macha allah xewul eh, defal ndànk ñebbeli mbaa baxal nan ko dañ ko togg ba mu ñor mbaa ñor na ñu def ci tamaate nga ni ma tamaate eh, eh, ñebe doom tamaate waay mañeka ñebe ñebe hmm, lépp ci màggal lépp ci màggal gi barki borom Tuuba ndox mu sedd mi macha allah ndoxu kërin mi macha allah banaana ji macha allah poppee yi macha allah caafli macha allah café touba gi macha allah café touba nag nee naa la kuur a koy dëbb kuur a koy dëbb café touba kuur a koy dëbb café touba kuur a koy dëbb café touba kuur a koy dëbb café touba kuur koy dëbb café touba café touba koy dëbb café dëbbaale waa Touba ba neexul mais jël ngeen ndam li neexul ba neexul mais gañe ngeen mais eh yéen booy eh côté bii am na ku fi gëj sangu de am na ku fi gëj a sangu de kan la kan ay ci ay ci ay ci leen sama gaay waa yow ma bàyyi jëli ko ah. waxatuma bojo bojo xaalis de laay xëccoo la gaarim nga nim oto yow nga ni ngan buñ la ne